vu la de, face à, mes questions, je de savoir sur au autonome de Dakar. Les réponses qui me sont fournies satisfaire parce que nous nous, nous, koor bi li ci indi ay oto ak di ko ci dugal kon soo demee ma wax ne que ne fii la ñu toll di jël ay alal jàmbur nga tegal may sage lii li nga xamante ne mooy mesure de sécurité yi nga xam ne moom la ma tontu ci rapport bi ah am na am na solo euh, dafa naa ni monsieur le ministre tontu na ma ci cherté des taxes au port autonome de Dakar euh, la résolution du conflit opposant le GALPES à CAPS allongement de six mois concernant la pêche de aussi euh, la réponse est exacte et même si même si nous bon bon bon bon nous nous nous monsieur le ministre nous pour xamante ne moom mooy euh, euh, napp bi ci dëkk bi ñun bokk nañ ci ñun immigré yi parce que immigré boo gis euh, ci boo ci soo gisee ci loxoom bitig bu mbagg comme ni ko wala yi boo xaree xol ba magasin nga ci fekk te bu ñu dellusee napp bii dañ cee war a bokk donc au nom de nos quinze collègues députés de la diaspora nous vous sollicité une audience pour projet yi nga député pour le retour des immigrés am ko mais fu il ñoom sama frère ak ñu ci parce que ñu ay de pêche ñu moteur yu baax pour ñu dem ñu ay pour Dakar grand Ablaye Matar Diop Yoff dem napp donc yàpp ni napp ji ñun am nañ ci solo te dina tax aussi ñu gën ci xiirtal xale ci liggéey parce que façon bi ñu koy defee comme on dit hein, tukki ñaar la bo amul da ngay am xam-xam yalla ko def ci tukkikat donc ñu mettre euh, notre savoir qu'on a puisé à l'extérieur au profit des Sénégalais monsieur le ministre lolu war nga si jàppale ñi nga xamante ñoom ñooy immigré

légui 10 rek ñoo ci des en fonction té ñeen seen liggéey metti les na lool les retraité nañ monsieur le ministre nous faatu nañ c'est en un travail très risqué qui consiste à contrôler la pêche sur nos côtes sénégalaises ñu gis ne donc conférence de presse nous ñu organisé monsieur le ministre di la ñaan audience la koy ñaan ci sa te fekk nga fi nekk xam bi jiitu na la jiitu na ma ni mu ma ñu ci ci salle bi de 82 la woon sax yow étudiant ngay ci ak bi ak général du budget ak monsieur le ministre. des finances ngeen dimbali leen fay leen xaalis bu bëriwul 3 milliards la 3 milliards fi ñu ko génnee dina baax monsieur le ministre di la ñaanal yàlla rek.